إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moom dong yooyu ñu koy jaamu ñu ngi koy gërëm ca di nangu ni amul kenn koo xamee ni nii yeyoo ñu ñu koy jaamu ku dul moom yeneen ci yàlla muhammad moo jiitu woon ci ay jaamam sangu ñu jiitu woon ak ñu mujj yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi koy roy ba ila yawmi diin gannaaw loolu mbokk julit sunu xutbab tey bi mi ngi jëm ci naka lañ war a bëggee suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam suñu borom yàlla mi ñu bind dig ñu àjjanaam ju kawe ya dig ñu teraanga àdduna ak alaxira ci lim ñu dig lépp mën na ko sañ na ko moo ñu woo ci ni su dee ne day bëgg ngeen yàlla topp leen yonent yàlla kon yàlla bëgg leen ca baal leen seeni bakkaar bokk na li gën a rëy lu doomu aadama yi am ci kaw suuf mooy yàlla subhanahu wa taala bëgg ko yal nañu yàlla boole ci jaamam yi mu bëgg mbokk loolu nag lan moo ñu koy may moo ñu topp ab yonentam yonent boobu nga xam ne topp gañ koy toppit lan moo ñu koy may mooy ñu bëgg ko bëgg goo xam ne dafay sax ci suñu reeni xol jiitu beneen mbëggeel bu dul moom moo ñu wax ca lu mu wax yàlla ko ko waxlu nee na kenn ci yéen ngëmam du mat abadan lu dul maa koy gënal ndeyam ak baayam maa koy gënal njabootam bal maa koy gënal mboole mi doomu aadama maa koy gënal it bakkan bakkanam kii mooy yonent yàlla bi yàlla yónni woon ci ñun suñu borom yàlla taggo ko ne yonent la boo xam ni dafa yërëm jullit ñi ñeewante jullit ñi lépp loo xam ne njëriñu jullit ñi la ñaan na yàlla defal leen ko àdduna ak alaxira lépp luy loru jullit ñi ñaan na yàlla teggi leen ko àdduna ak alaxira moo sacrifié boppam sacrifié dëkkam sacrifié njabootam tuur deretam ngir lislaam taxaw lii lépp mbokk sallallahu alayhi wa sallam daawul nelaw guddi taxaw di ñaan di toroxlu ca la ëppoon la koy def mooy ngir xeetam texe sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yooyu nga xam ne ñoo dundoon ak moom di dégg ay waxam di gis ay jëfam alxuraan di wàcc ci seen biir mbokk ñooñu tamit ñoom ñoo dëggaloon bëggeelu yonente ba sallallahu alayhi wa sallam keroog xare Badr taxaw nag ñetti téeméer ci ay sahaaba waa Makka ñi ngi ñëw nekk junniy nit mag leen trois fois yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di réunion sahaaba yi waa léegi lan mooy pexe lan mooy pexe rawatina waa ansaar ndax dafa siñante woon ak ñoom pacte ne su ma ñëwee Madina da ngeen ma wattu tey nag génn nañ Madina ña nga ca àll ba lan mooy pexe ci loolu la sangu waa ansaar jóg di saad ibnu muaz radiallahu anhu daa di ñëw na ko ay mi yàlla yónni xamal ne day suñuy alal mi ngi nii ci sa loxo la nga ci jël moo ñu gënal la nga ci bàyyi suñuy bakkan mi ngi nii sa loxo loo ñu sant ñu def wallahi boo ñu waxoon ñun ñëpp nañu ànd xuus géej gi dem ñun ñëpp daan dugg xuus géej gi kenn du des gannaaw mbokk ñii ñooy ñi bëggoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xabaab ibnul addi yéeféer yi màkk yi jàpp nañ ko tiim ko mag ak ndaw góor ak jigéen façon lu ne ñu koy def di ka daggate ay morso ay morso abu sufyaan radiallahu anhu boobu tuubagul mu ne ko ah xabaab naka nga def muhammad mi la yóbbi lii lépp day tey yéene woon nga mu nekk sa place mu ne ko wallahi abu sufyaan yaa ñàkk a xam maa ngi waat ci yàlla jalla wa ala ne suñ ma proposé woon kaay dellu ca say soxna ak sa njaboot dara du la dal te ñu jël dég bi gën a sew jam ko yonent yàlla bi préféré naa sax ci lii ba dee ci moom a gënal ñu jam yonent yàlla bi ab ab dég moo gaa yi ndax kii ëllëg mën ngaa waxati keneen koo xam ne dana bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yegg ci sahaaba yi noonu mu ko waxe woon noonu la ko abu dujaana defee woon keroog ghazwatu uhud ba nga xamee ne nattu am na ba lu ëpp ci jullit ñi daw yéefir yi attaqué ak seen flèche ya ci la ñoo bóof ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam flèche yi dal ci gannaawam di dal ci gannaawam ba mujj mel ni siñeel radiyallahu anhu ba baa ñu ñëw génne yonent bi moom noonu la faatoo shahid radiyallahu anhu mbokk ñi ñooy sahabatul kiram benn jigéen a ngi nii bokkoon ca jigéeni madina ya ñu koy wax ci waa bani dinaar keroog xasatu uhud baayam nit daje na ak moom da ko soxna si sa baay day yal na yàlla yërëm ko faatu na mu ne waaw mais ana yonent yàlla bi ñu ne ko mi ngi ci gannaaw am ko dajeeg moom ne ko ah sa borom kër ga day faatu na mu ne waaw d'accord mais ana yonent yàlla bi ñu ne ko mi ngi ci gannaaw ba ñettee li ñu dajeeg moom ne ko ah sa doom ju góor ji day daje na ak moom faatu na mu ne waaw yal na yàlla yërëm leen waaye ana yonent yàlla bi biñ demee ba won ko yonent yàlla bi mu ne ko kullu musibatin baadaka hayyina comme yow mucc nga rek amul musiba bu amati mbokk sahaaba yi ñoo bëggoon yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nii la ñu nekkoon mag ñaangoog góor ñaangoog jigéen ñaangoog ci échantillon bu ndaw bu ñu leen ci jëlal boo xam ne mënoon nañoo taxaw ci minbar bi ba tisbaar di leen wax sacrifice biñ defoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu gënal leen keneen ku dul moom mbëggeel goo xam ne dafa saxoon waaye nag lenn dong nga taxoon mooy du woon mbëggeelu pension du woon mbëggeelu mbëggeelu passion ñoo ngi ko bëggoon mbëggeelu am seen ngërëmal borom jalla wa ala mbokk ñun tey fan lañ toll ak yonent yàlla bi ci mbëggeelam yonent boobu nga xam ne suñu borom moo ko tagg wàcc naa ci yow téere xamal na lu ma xamalul kenn samay ngëneel lu màgg la ci yow kooku nga xam ne moo gën ci lu kuy dox ci kaw suuf yonent boobu ndax mbokk dana tax nag ñu bëgg ko bëggee li nit ci tey lan mooy bëggee li nit ci tey moo yëkkati yonent yàlla bi teg ko ci palaasu yàlla jàpp ne moom kat lépp lu yàlla xam-xam na ko lu yàlla mën mën na ko di ñaan ci moom di xettili ko ci moom am na ñoo xam ne nii sax waxuma yonent yàlla ba waaye ña topp yonent yàlla ba sax la ñuy defal loolu mbokk loolee njuumte mënu koo paase suñu borom yàlla gannaaw ba mu ko taggee tagg ya tagg ya gën a màgg ah teewul nag mu daal di freiné doomu aadama yi te yéen ñi dundoog dajeeg tey mboolem loo xam ne day daw am na accélérateur waaye am na frein frein ba mooy lan qul innama ana basharun mislukum nee leen mankat nit laa comme yéen kese donte ne dañoo wax yu jëme ci man ne yàlla bi ngeen war a jaamu nag xam leen ne yàlla kenn la képp koo xam ne daa bëgg ngërëmal yàlla na jëf-jëf ju baax ja bu mu bokkaaleeg yàlla kenn mbokk lii mooy la nga xam ne mooy mbëggeel bu baax bu ñuy bëgg yonent yàlla bi mooy nga gëm ne jaamu yàlla la mënulu laa jëriñ mënu laa lor nga gëm ne yonent yàlla la mënoo jaamu yàlla lu dul la nga roye ci moom ñaar yi la ab jullit war a boole ngiree bëggeelu yonentam sax ngëmeelu yonentam sax mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca jamono amoon na ñenn ñu daan déraper mbëggeel ga taxoon ñu ko daan yëkkati mi ngi noonu bay wax yenn wax waaye da leen a teeloon a freiné ne leen hey laa tatruni kama atarat nasara ibnu maryam fa innama ana abdu fa qulu abdullahi wa rasulu bu leen ma yëkkati mukk comme ni chrétiens yi yëkkati isa xam leen ne man jaam rek la yem leen ci wax ne jaamu yàlla yonenti yàlla loolu tax léegi bu ngeen di taaya da ngeen wax wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu jaam la yonent la mbokk kii mooy jaamu yàlla ba gën ci ay jaamam ñu war koo bëgg lan mooy mandargal bëgg ba mooy ñu daal di gëstu am njàngaleem suñu borom ne wa ma aataakum rasulu fa xuzuuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu yonent bi indil leen jël leen ko lum leen tere bàyyi leen ko du dagan ci benn jullit mu dégg na yonent yàlla digal na leen nangam mu ne waaw mais nag du dagan ci benn jullit mu dégg yonent yàlla tere na nangam mu ne waaw mais nag wa ma kaane li muminin wala mumina ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alxiyaratu min amrihim wa man yaasi allaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina du yey ci jullit yàlla dogal wala yonent yàlla dogal muy am lenn lu muy tànn wala lenn lu muy xalaat lenn dong la ca war a teg mooy sami'na wa ata'na dégg nañu topp nañu suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ci lii lañu ñaaxoon ca ne góorgóorlu leen mooy sama sunna mooy sama sunna xulafaawu rachidin moytu leen lépp loo xam ne dañ koo sos ci diine ji mbokk diine du xalaat diine du li ngay fekk say maam diine du loo xam ne nii ay passion ki bëgg-bëgg la waaye diine mooy dégg ak toppoo mooy leen sama sunna mooy leen sunna xulafaawu rachidun ña nga xam ne dañoo ñëw sama gannaaw di sos ay mbir ci diina ji ngallawaayu bàyyee leen ko ak ñoom loolu tax ba mbokk julit mboole mi jaami yàlla dana gëstu ba ñaar yi am benn ndax jaamu yàlla gi yonent bi moo ko dégle ñu ne ko waaw waaw mu ne naka la ko doon defe masalan heure bi démb daje nañ fi julli tisbaar naka lañ ko defe dañoo def ñeenti rakka yoo xam ne amul xutba amul dara waaw tey ñi ngi daje tisbaar naka lañ ko defee imaam day ñëw xutba ñu julli ñaari rakka wax ko ci kaw lu tax loolu parce que nii la ko yonent bi alayhi salaam doon defee jeex na ec loolu moom mooy mandarga sa dund yépp ngal la waay na doon ab dajale booy daje na doon ay zikr la yooyu zikr na doon lépp loo xam ne lu ñuy gëm la wala lu ñuy jëf la ñaari question yi laaj ko sa bopp góor nga wala jigéen ndax lii yonent bi digle na ko d'accord yonent bi bi mu ko déglee naka la ko doon defee su dee ne question bu njëkk bi amoo ci réponse lii day xamuñu fu ko yonent bi déglee wala boog xam nga ne yonent baa ngi koy déglee waaye ñii nga gis ñu koy def day niñ koy defee bokkul ak naka yonent bi doon defee ngal la waaye yow bàyyi leen ak loolu gëstu ji nan la yonent bi alayhi salaam doon defee suñu borom moo ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ñeel na leen ci yonent yàlla bi royukaay bi rafet ñeel koo xam ne yaakaar na payug yàlla yaakaar na àllaaxira yàlla teral ko mbokk mbëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay ngëneelam day tax ñu yeyoo tabbi fa yonent ya tabbi tabbi fa shuhada aw ya tabbi doonte ne ne ñi ngi faatoo suñu kawlal benn ci sahaaba yi ñëw na ci moom yëngal bopp bi triste lool yonent bi alei salaam na ko waaw lan la mu ne ko ay mi yàlla yónni dama la bëgg-bëggeel goo xam ne danaa nekk fii nit di sama kër ak soxna yi ak doom yi du ma mën a toog danaa dellu siwaat ba gis la waaye dama xam ne même bu ma demee aljanna fa la yàlla nar a dëkkal du bokk ak fi ma nar a dëkk kon mën naam dootuma la gis yonent bi ne ko déedéet ki nga bëgg moom ngay àndal na am mbokk ki nga bëgg ngay àndal waaye lan moo waral loolu mooy doomu aadama bi boo ko bëggee doo juyoo ak moom loolu tax ci bëgg yonent yàlla bi du gis ñu ne yonent bi nii la doon defee ñu ne ko waaw waaye suñu sow nii la doon defee mu bàyyi la yonent bi doon def toppi suñu sow yonent bi nii la tërale woon sëñ caam nii la tërale mu bàyyi la yonent bi wax toppi sëñ caam kon mbokk mbëggeelu ñooñu ñoo gën a màgg ci xolam waaye boo gisee yonent bi alayhi salaam sahabatul kiram meloon ne moom képp ci ñoom nekkoon yonent bi dox ci kaw suuf mooy bëggeel gañ ko bëggoo woon booluwuñ ko ak bëggeelu kenn topp gañ ko toppe woon toppewuñ ko kenn lii mbokk mooy la nga xamee ne nii mooy mandargaal bëgg gañu war a bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu bokk ci loolu mooy gannaaw ba nga ko gémee gannaaw ba nga ko toppee gëstu la nga xam ne mooy sunnaam waaye it tamit nga bari lool di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk xam leen ne su dee ne ay doomu aadama dañuy dajale alal yu bari mbooloo yu bari lan mooy jubluwaay bi dañuy feeñal na ñun kat dañoo bëgg yonent yàlla bi ay waay mbokk jullit kaay ma wax leen lu gën a yomb loolu lu gën a wóor loolu lu yonent bi alayhi salaam joxe ndigal gannaaw ba ko yàlla joxe ndigal suñu borom moo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima yàllaa ki malaakaam day ñi ngi julli ci yonent bi ey yéen jullit ñi julli leen ci moom ci ñaanal ko mucc mbokk yàllaa ki malaakaam ñi ngi màggal yonent bi yàllaa ki malaakaam ñi ngi teral yonent bi ñi ngi bàyyi xel yonent bi ay yéen jullit ñi def leen ko naka lañ koy defee suñu borom yàlla digal nañu ko mi ngi noonu suñu borom yàlla digal nañu ko dépense zéro amul lu ñuy dépensé paas zéro amul lu ñuy paas ku nekk këram lay toog ku ne ci jàkkaam lay toog ca mooy baril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent boobu nga xam ne nee na amul kenn ci yéen koo xam ne dana julli ci man ma min ahadin yusallimu alayya illa radda allahu alayya ruuxi hatta arudda alayhi salaam amul kenn kuy nekk ci kaw suuf na doon Sénégal la Amérique la fu mu mën a doon nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul yàlla boole ne ko benn réseau malaaka yu ko jottali julli googee mu ñaan yàlla julli ci yow yàlla julli ci yow fukki yoon nga julli ci moom fukki yoon yàlla julli ci yow téeméeri yoon mbokk lii da ngay gis ne da lay jokkaleeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñun gisuñu ko sallallahu alayhi wa sallam gisoon ko moo ñu gënal suñuy alal ak suñuy doom te it loolu la waxoon sahaaba ya mu ne woon ndax xamu leen ñan ñoo gën a yéeme ngëm sahaaba yi la ko ah xanaa malaaka yi mu ne malaaka yi nu ñu def te ñu ngi seen borom ñu ne ko xanaa ñun sahaaba yi mu ne yéen naka ngeen ñu def ca maa ngi nekk seen biir di leen jàngal aaya yàlla yi ñu ne ko waaw kan yow mi yàlla yónni mu ne ay nit ñuy ñëw sama gannaaw bëgg ma bëggeel goo xamee ne nii mënoon nañoo wan gannaaw seen jaboot wan gannaaw seen alal ngiree rek gis ma benn yoon jàkkaarloog man yàlla yàlla boole ñu ca waaye mbokk bu dee ne loolu amul it xamal ne foo mën na nekk yow góor wala jigéen heure boo nee allahumma salli ala muhammadin wa sallim xamal na yonent bi yàlla dégtal na ko ko ca ñaan na yàlla moom it yàlla julli ci yow yàlla julli ci yow fukki yoon lii mbokk ñu bàyyi ci xel di ko baril fu ñu mën a toll ca it xam ne loolu mooy li lënkoo ak ñun waaye lay base fondamentale fexeel ba la ngay gëm mooy la yonent bi indi fexeel ba lépp luy jëfe ci diine mooy la yonent bi indi lii dong dong dong mooy feeñal sa mbëggeel yonent bi mbëggeel goo xam ne gu yàlla nangu la am maa nag bu la neexee bëgg ko nu mu la neex yaa xam waaye bu dee mbëggeel ga yàlla nangu mooy mbëggeel gu tegu ci gëm la mu indi woon topp ay ndigalam bàyyi ay tereem baril di julli ci moom ca bañ a jaamoo yàlla lu dul loo xam ne nii moom mooy sunnaam yal na yàlla boole ñu ci ñi gëm ab yeneen tam topp ab yeneen tam bëgg ab yeneen tam yal nañu yàlla saxal ci sunnaam yal nañu yàlla féewaleeg lépp loo xam ne ay bidda la ak i xurafaat yal nañu yàlla booleeg moom ci àddina firdaws yi gën a kawe yal na yàlla teete ci suñu njaboot yal na yàlla yërëm ci jéggal mboole mi jullit ñi nga xam ne gëmoon nañ ko topp ko sallallahu alayhi wa sallam allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaam سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين